أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيثها بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمساتي سيئاتيني وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بارك برم دار المعبس مولوي ما نجلي دي نوي دي لين زيارة دي جيتل بي زيارة بي كيفي توك خادم رسول شيخ احمد بامبا di sëriñ Mountakha Bachir ñuy ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootuk sëriñ Touba gépp di nuyu ak a ziyaara ki toog toogaayu borom Darou Mouhty muy sunu bunt ci sëriñ Touba muy sëriñ ba Anta Niang di ñaan woroom borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu borom Darou Mouhty gépp nuyoo boobu nag dañ koy teg ci loxol sëriñ am Amsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke di ziyaare bokk yépp man samay wax du ci bari li may wax mooy murid yi ab communauté lañu mbooloo lañu ay millions lañu kenn nit jóg dévier leen tooñ leen loolu yi nag man moom laa bëgg mu saafarawu te yàgg naa koo xeex su fekkente ni Omar Diagne dafa ëpp doole yoonu murid dana nu ko xam man daal

dañ ko war a defaraat loolu maa ngi koy doog a dégg ma bëgg nag nun murid yi nu taxaw ndax li tubaab yi di wax nii l'impossible n'est pas murid murid yi tëlewuñu dara la preuve en est gis ngeen li ma jàkkaarloo ci ay caméra sëriñ am satu ñeent ci gannaaw خاتل نيو يونو مريد تي ميجاي با سا واجيرو شي عبد الله حتمك يالنا كو سونو بروم فايل واخ واخ مو واخون واي تاي كيس نين لي كاميرا تي ليب اي مريد تاكو موم ماي ساكو نك ñu takku mbooloo moo xamanteni bi dana nu aar yoon wi dana nu aar dëkk bi dana nu aar njabootu sëriñ tuubaa gi ndax li ma wax ci media yi murit yi tëlewuñu dara dinaa ci joxe benn misaal muy jumaay Touba ji jumaay Touba bi ñu koy tabax Touba amul forage amul ndox fan la ñu doon jëlee ndox mi ñu ko doon tabaxee Cheikh Mouhamadoul Moustapha yàlla na ko sunu borom fayal moo wutoon ay mbandi simon yu mag bu nawet jotee fu ab déeg taa ci Sénégal murit yi dem wut ay ndab dem root ko ñëw sotti ko ci mband yi bu nooree moom la ñu daan tabaxee am na benn journaliste Mangalou Touba 1956 reportage bi mu doon def en français bi bi mu jeexalee ma ngay wax ni duma génn Touba mukk te rendre hommage delloowuma njukkal les soixante mille murit booba nee nañu 1956 murit yi soixante mille la ñu woon mu ni ñoom day danaan leen rendre hommage ndax seen tabax yi ñuy tabax pyramide ya nek Égypte lañ ko mën a ak cathédrale yi nek Occident mu ni moon a yi day domteeguñu la nature amuñu ay groupe amuñu ay lenge amuñu ay bur ay ay ay ay li jaxase ciment lu ñu ko waxee ci euh, li ñu def lépp seeni loxo lañ ko defee te loolu c'était en 1956 sept ans après la Sëñ Fallu doogale eggale jumaa ji kon li may sàkk mooy Omar Diagne mii daal na yoon jóg def li war su fekkente ni dafa noo ëpp doole nag nu xam te loolu sax mënut a nekk yoonu murit dara ëpp ko doole di sant njabootu Serigne Touba gi nga xamante ni teew nañu ngir lii nga xamante ni yëkkati nañ ko jëme ko ci seen maam am na murid yooyu nag sëñ Touba desu ko xulool man damay xulool Serigne Touba damay xeexal Serigne Touba bu jaree joxe bakkan damay joxe sama bakkan ngir Serigne Touba bu ma tee naa dem sawar maa xam kon Serigne Touba kenn du ko xeexal giñ naa ci dara yi borom Daaru Muxti Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi muy nekk ci suuf ku taxawoon ni bindum sëñ Tuubaa mi baaxut dañ koy defar la mu waxoon ni murit buy dox kenn ku nekk sañ naa doon sab sëriñ waaye murit bu tëdd ci ak jaat kooku ni diway sab sëriñ bu ma noonu jóg du fa aw yat joosi lay fab waaye wallahi alazim sëñ Abdoulah tey bu fi ne newoon waa jëmee bañ a tudd aw turam taxaw ni mbindum sëñ Tuubaa baaxut fu mu nekk dana ko fekk maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen